na daal euh, kenn ci seen i mbokk yoo xam ne moom dëggal na ni sax. Mhm. doyen dafa ne nekkul ne moom moo euh, maître Ousmane Sonko sous contrôle judiciaire loolu c'est-à-dire. man mii di wax ak yow nii. Mhm. il m'a l'a dit. ah mais moom bu bu sous contrôle judiciaire wul Ousmane Sonko kan moo ko def alors. ah la hiérarchie fii Sénégal on parle de démocratie mais ñëpp xam nañ ne Afrique la vraie démocratie. non hiérarchie mais mais greffier bi mooy toog ak Ousmane Sonko ak avocat am ak moom. moom mooy du bind. xam nga lim ma wax. dama ne ko léegi nag naka la fa mbir mi demee bi ñu paree ba pare ne ci jërëjëf parce que il faut tamit le remercier après tout ndax jàmm amoon na te jàmm jooju moom la ñëpp doon wër. Mhm. moom la ñëpp doon séentu. mu xamal ma ne ma moom placé wu ko sous contrôle judiciaire. ah mais kon moo ko placé sous contrôle judiciaire. ñi ci kaw. ay kilifaam. ah mais bien sûr. mais ñoom ñooy qui l'ont placé à ju ñoom ñooy ay kilifaam je pense que <laughs> di nga ko xam. ministre bi président Serigne Bassirou Gueye. ñi ci nga xam ne daal ñoo ko yilif. Hmm. ñoo ko ñoo placé Sonko sous contrôle mais du Samba Sall. ah mais xanaa cachet beeg signé moom ku mu jàkkaarloo xanaa bu paree moom dina signé juge bi signé wala. l'État a de moyens. mais moom nekkul ne moo placé Sonko sous contrôle judiciaire. mu ngi ci dëgg maa ngi ci fen. nekkul ne moom moo ko placé moo tax loolu il faut que sénégalais yi xam ko